jërë ngeen jëf yéen ñi tàmmu dakarnet.com n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour que ngeen mën di jot suñuy vidéo saa su nekk ñu indi leen nag xibaar bi nga xam ne mu nga xewe woon fële ca Touba ginnaaw ay weer police di def l'enquête ci ñaari xale yooyu nga xam ne dañ leen rendi woon ba ñu jàppee kii di Bara di seen papa nag moom dafa def ay aveu comme quoi que moom moo rey ñaari doomam yi kii di Baye Daouda Touré tollu ci ñaari at ak Serigne ma dina Touré toll ci ñetti at yëf yi nag ci fàttali ma nga xewe woon ci guddik 26 jàpp vingt 27 septembre 2019 ba ko policiers yi jàppee nag commencé koo laaj moom dafa ne woon du moom waaye xamul woon ne police moom dafay liggéey ak ay laboratoire yu xarañ ba ñu indil ko ay preuve scientifique ngir mi nag moom Bara nekk mareyeur dafa mës a waat ne du moom waaye biñ ko tegalee ci table bi nag ay preuve scientifique tàmbali ko ci ay empreinte yi ñu fekk ci arme du crime bi maanaam arme bi ñu xam ne moom la ñu reyee xale yi am ay ay trace de sang yu ñu fekk ci blouson bi nga xam ne moom moo ko soloon trace de sang yi nag ñi ngi nekk ay trace de sang wu ñaari xale yi teg ci nag ba ñu dégloo ñaari jabaram yi seeni version lépp convergé wu ci moom ci la dem nag aux aveux daal di wax ne moom la waaye xamul lu ko ko defloo moom sax nee na mi ngi ñaan yàlla na ko yàlla jéggal ci loolu ndax ba léegi xamul lan moo ko ko defloo waaye nag bu ñu croire nos confrères de Libération barature Touré da doon soupçonné ñaari jabaram yooyu que ne dañuy jaaloo ba tax mu rey ñaari doomam yi kenn ku nekk di doomi kenn ci jabaram yi pour mën a venger wu ci ñoom mu nekk mbir mu doy waar mbir mu ñaaw a ñaaw a ñaaw xewe woon fële Touba jërë ngeen jëf